al reménage jub sama rakk ji bi nga sol tubaar fakalla macha allah say fukki morom a ngi taxaw bëgg ko sol tey yàlla dogal li mu dogal tey lan ngay wax waa Sénégal di ko wax suñu amee internet bi ah, am contentement rek bu baax dëgg di ko ñaanal képp ku ko sologul yàlla defal la ko dëgg yàlla kontaan daal def naa ko trop boo ma xoolee sax xam bi la bi la mëgay faal ni la da lay takk si ah, nouvelle bi bi nga ko yëgee ah, nan la la def fan yëpp xoolal sama yaram bi comme dañ ko doon maas. nga nekk dama kaa nopp mu nopp ma mu sigil ma sagal ma ma di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defaral. sama baay faal boobu nga xam ne. moom rek laay toog. <laughs> Ndeye Ndiaye sëy yombul euh, yaa ngi dugg ci li nga xamante ne mooy néegu sëy sa diggante ma ngay faal umpul àddina umpul waa Sénégal euh, tey boo ñu amoon loo ñuy wax euh, tey lan lay doon. tey boo amoon loo ñuy wax euh, nga dugg ci néegu sëy euh, néegu sëy yombul euh, sa diggante ak Magueye Fall wër àddina wër Sénégal tey boo amoon loo ñuy wax ci sëy bi tey noo fas yéenee sëyee ah, nday njaay ay feemam nday njaay ay affaire am ah, <laughs> di sëy rek ko ni gi baax yi di sëyee rek uh-huh. xanaa man su ma xoolee sama yaay rek sëy ko xoolee rek sëy moom mooy sama référence ah, di ñaan yàlla jubale maag sama jëkkër saa mu ñu yiir ñu aar ñu te xam ne ay xale rek lañ xale la man xale laa. <laughs>